bi ñu leen installé septembre la woon donc septembre bi ñëw lay am deux ans am ñu jàpp ne euh, da ngeen di commencé euh, li nga doon expliqué sànq jëm ci wàllum budget beeg travaux yooyu noonu bañ tax na waruñu ko mën a dissoudre ci mois boobu noonu euh, lan moo ciy dëgg lan moo ci nekkul dëgg waaw li ci dëgg mooy président de la république bu defee 24 bu bu assemblée nationale defee 24 mois 24 mois mën na dissoudre assemblée nationale mhm. c'est-à-dire avant 24 mois moom mënu ko liggéey la boo xam ne dafay wane ne ñaari pouvoir yooyu mais ku ci nekk dañ la jox possibilité maanaam exécutif bi boo bu dawalee ba deux ans président de la république su ko neexee dissoudre assemblée nationale loolu mooy benn euh, législatif bi tamit dañ koy jox ne ko am na possibilité su fekkee ne am na euh, un grand nombre de députés bu ko laajte déposer li ñu naan motion de censure dans le cadre du d'un d'un gouvernement mm-hmm. donc ku ci nekk jox nañ la loo xam ne Euh, mën nga euh, ne euh, les pouvoirs sont équilibrés. Mhm. Mhm. loolu mooy équilibre pouvoir entre exécutif ku ci nga loo yor loo xam ne keneen ki mënu ci dara. voilà voilà keneen ki mënu ci dara donc loolu mooy li ñuy équilibré. Mhm. entre pencum ndaw réew mi ak gouvernement. donc noonu lay doxee. maintenant effectivement mois de septembre mooy période bi nga xam ne dañu def budget bi. liggéey bi. waaw mais malgré loolu. président de la république am na possibilité dissoudre assemblée nationale am na possibilité bi gannaaw entre possibilité bi ak lan moo gën a pratique oui loolu ça dépend justement côté pratique bu ko defee moment boobu noonu est ce dina am njeexital ci at bi ñu ci budget beeg yu ni mel waaw sur le plan pratique nag léegi su fekkee nag léegi dañuy wax rek juste sur le sur le plan pratique en fait sur le plan pratique ce qu'il faut savoir c'est que euh, élection lu ñuy préparer la ak loo xam ne da koy dugal ci budget mm-hmm. maanaam 2025 Euh, si budget bi nga xam ne voté nañ ko 2025 budget bi dugaluñ ci li nga xam euh, pour pour 2024 voté wuñ ñun budget boo xam ne dafa am élection législative boo xam ne am na koppar yu ñuy ah. dugal ci élection 2024 d'accord donc loolu ça n'a pas été voté mm-hmm. je parle des aspects purement pratiques bien sûr premièrement euh, li gën a pratique en tout cas pour exécutif mooy ñu fexe ba ñu euh, assemblée nationale votel ko budget pour que mun mun ko exécuter période période deux mille vingt cinq maintenant le reste nag dafa am logique politique mm-hmm. si faut être il faut avoir la tête sur les épaules logique politique mooy am na période boo xam ne dem nañ fi élection présidentielle boo ngeen gisee dafa am changement de majorité mm-hmm. te aujourd'hui assemblée nationale majorité bi feneen la féete donc dans la logique politique mooy que ah exécutif moom li ma xalaat ne su toggee ba ba diir ba période boobu passé euh, li gën a logique mooy mu demander à ce que. ñu dissoudre assemblée mais mais côté pratique ba tey bu ñu ko defoon. Mhm. Euh, est-ce que député dinañ am temps wu maanaam député yi ñu installé waat dinañ am temps wu liggéey ci budget bi ak délai bu gàtt boobu noonu. c'est-à-dire c'est-à-dire parce que on vote euh, maanaam marathon budgétaire bi souvent ñu li ñu ci gën a gis télé bi mooy li am novembre décembre ci la ñuy voté pour xam 2025 budget bi ku nekk lan nga moom lan nga am bu ko tasoon tey jii ni en septembre par exemple war a organiser une élection est-ce que après ça avant 2025 dinañ mën a xam Sénégal nan lay fonctionner en 2025 waaw c'est très compliqué en mm. fait il y a beaucoup de choses yoo xam ne dafay rentrer en jeu mooy li ma wax ne léegi nii il faut déjà voter une loi de finances rectificative boo xam ne dafay am euh, majorité des députés yu décider mais Euh, dañu voté budget pour dem élection dem élection loolu benn la. waaw boolu loolu mooy. bu maintenant les budgets des ministères. pour 2025 budget des ministères pour 2025 euh, foog ñu voté ko pour ñu mën ko exécuter. ok sauf sous certaines conditions. Mhm. c'est-à-dire sous certaines conditions su assemblée nationale voté wul budget bi am na ay conditions yoo xam ne loi teg na ko pour que gouvernement président de la république mun exécuter. euh, pendant la période 2024 sur la base de ce qui existait en 2000, euh, mmh. de, 2025 euh, sur la base de ce qui existait en, en 2024. 2024. Mais c'est très complexe. Euh, loolu ce serait peut-être inédit sa mës nañ dund lu mel noonu au Sénégal. xaw ah. je ne me rappelle pas. voilà c'est pas j'ai pas gisuma gisu fekke fekkewuma en tout cas fu loolu mm-hmm. mais je pense que bon li ëpp solo